bon jàpp nañ content. kontaan nañ euh, jàmm ambiance am football amna fi. fii ay def mise pour récompenser équipe qui teg nañ lo xamné lu am solo la pour équipe bi nga xamné gagner, dina gagner tek nañ dara aussi pour les autres clubs euh, def nañ de sorte à ce que aussi la population guiss ci bopam am nañ ay partenaires yu indi ay infrastructure yoo xam ne dinañ mën a bégal Nioro bégal population Nioro am na fi ay oto ay taxi ay moto yoo xam ne day ñëw pour bégale ko jeunesse bi ak fexe ba population bi mën a am mobilité boo xam ne dina nekk ci lu mucc ayib ak loo xam ne am na sécurité. stade bi macha allah def nañ ci ay jéego def nañ avec notre équipe jàng xool nañ terrain bi def étude bi.

taxaw na ci bu baax a baax a baax ba nga xam ne foog naa ren dañ am stade bu gazonné dañ am stade boo xam ne dinañ am ay projecteurs. centre yi ñu ngi leen di jàppale ñu ngi leen di jox ay subventions ñu ngi tey rek di ngeen gis ne jàppale nañ mais li nga xam ne mooy gën a jàppal bi mooy infrastructure yi stade yi suñ ko defaree centre dinañ gën a am chance pour mën a jàll comme ni nga xam ne bon Espoir du Rip def nañ ko doon champion régional ba dem.

président Macky Sall a gagné 70, 75 68% à la commune. Inch'Allah, Rabbi, nous faire pour que les résultats soient doublés. Nous sommes en train pour Le résultat est mon Continuer sur nous, sur nous, continuer les nions d'œuf. Parce que nous, les vies d'œuf, nous rôlons. Les vies maquissants, les vies d'œuf, nous rôlons. Les vies d'œuf, nous rôlons. Nous rôlons. Nous rôlons. Inch'Allah, Rabbi am nañ espoir ñun jàll premier tour fii daal saawa bopp amoo fi fii daal ñun ñoo ànd ñun ñëpp am benn objectif moom mooy gagner dès le premier tour en tout cas avoir des résultats chacun va faire le nécessaire ku ci nekk di nga def li nga war pour que nga gagner sa place ñeneen ñi gagner comme ça ñu boole yëpp gagner bi rafet maintenant sunu parti sunu coalition taxaw na li nga xam ne am nañ ko ci jour néew na mais weeru koor la aussi mais dañu taxaw takku parce que li nga xam ne dem nañ ko ci réew mi kat war nañ ko continuer pour le bien-être du réew mi pour que réew mi mën a gën continuer li ñu def ci école yi ñu gën ko continuer li ñu ci santé ñu gën ko continuer li ñu def ci yoon yi ci àll yi ci lépp ñu def ko continuer ko économie gën a jëm kanam ñu nga ñu fexe ba nga xam ne xale yi gën a am ay liggéey ay xëy ci loolu lañ taxaw ci loolu lañ nekk